nga toog fi nga toog nuy àdduna euh, nuy ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci plateau bi nga xam ne mooy plateau bu wane ma nga siyaar leen saafonteeg ñoom xool ñi nga xam ne ñoom ñooy sa ay am di jàmm ñi nga xam ne ñoom la a xam ne ñoom ñooy sa ay xarit préféré nga may leen li nga xam ne moo di dédicace ñu jàllale ko fii ci biir émission bi day mel ni yaa toog ci chaise bii Euh, jàkkaarloog moom euh, di ko may li nga xam ni euh, moom moo di dédicace donc yéen defee leen ko noonu ñi nga xam ne aussi tamit dañuy toog di def seen ay délire émission bi pendant ou après ou avant yéen ñëpp émission bi buy démarrer ci pendant avant émission bi di démarrer pendant émission bi di daw wala après émission bi mën ngeen def seen ay vidéo yoo xam ne aussi tam ay vidéo délire la ngeen envoyé waale ko ci numéro bi nga xam ne c'est uniquement WhatsApp ñu jàllale leen ko ci biir émission bi ñu bokkandoo ko ñun ñëpp mais ba tey tamit am na li nga xam ne moom moo gën a neex mooy chaque jour am na ñi nga xam ne ñoom ñooy xewle loolu la ñuy wax euh, sunu ay natif du jour moom mooy anniversaire yi nga xam ne euh, day am chaque jour ñi nga xam ne ñoom ñoo xewle euh, donc noonu lay deme moom aussi tamit da ngeen jël seen ay photo wala seen ay xarit ñi nga xam ne ñoom ngeen bëgg a souhaité ngeen jàllale ko ba tey tamit ci numéro bii nii ngi affiché foofu noonu boo leen ñu ko jàllalee fii ñu leen seen ay xarit souhaité leen joyeux leen neexee sax ñu daggandoo gâteau donc noonu lay demee saa su ne mais ba tey aussi tamit comme ni ñu koy faral di def defee saa su ne émission bi nga xam ne 100 pour cent vente la moom mooy but bi moom mooy base bi comme ni may faral di ko waxee mooy heure bu ma taxawee fii Mbaye Ndiaye laay tudd euh, donc damay jaay ba dee te Mbaye sax du hasard ndax kañ ma tuddee kañ ma dippee euh, sama baay ja Mbaye Ndiaye la tudd euh, donc ma ñëwaat fii tuddaat fi Mbaye njaay donc loolu du hasard da ngeen di jël seen ay ay ay ay ay ñi nga xam ne da ngeen bëgg bokk ci pack bi nga nga xam ne mooy pack bu 30 000 francs bi mën ngeen jël li nga xam ne moom mooy seen ay téléphone ngeen filmer li nga xam ne moom mooy seen ay Euh, yokku jaay robb yow mi nga xam ne da ngay jaay ay yow miy jaay ndékki sax pain ndambe euh, wala ay thon ak mayonnaise yi nga xam ne dafa neex nekk ci koñ bi nga xam ne bëgg nga nit ñi xam euh, nit ñi xam ni koñ bi yaa fi ne ci roq bi di jaay li nga xam ne moo di ay thon ay mayonnaise ak comme ñun ñi nga xam ne des fois dañuy dox ba ngoon euh, xiif euh, jàdd fa jënd suñu pain thon wala suñu pain beurre pain chocolat maanaam mooy table yi nga xam ne dañ koy faral di gis suñu dëkk ba mu ci ci banlieue bi euh, su ci bon lieu bi ndax foofu noonu xiif dama ni ku xiif yow la neex ndambe gaa nga fa ton gaa nga fa mayonnaise gaa nga fa table yaa ngi ci mbedd yi firiir yaa nga fa lépp loo bëgg laax bi fonde bi yow moom sax yow ci nga bokk jëlal sa téléphone euh, nga filmer parce que loolu yëpp ci xeetu gëm sa bopp la bokk nga filmer li nga xam ne moom ngay jaay euh, nga ñëw nga jox ñu trente mille francs ñu habillé la a ko jaayal la ko euh, te bu boobaa képp a ne yéen ñi nga xam ne da def vente en ligne wala yéen ñi nga xam ne aussi tamit da a nekk ci ruq ruqa xaat yi yor seen ay bagages yu ndaw di doog a démarrer yéen jagleel boobu noonu mooy bu 30 000 francs bi mais bu ñu jugee ci bu 30 000 francs bi dañuy dem ci bi nga xam ni euh, moom mooy bu 85 000 francs bi euh, boobu tamit euh, moo gën a neexati ndax boobu ñun dañuy fëx àndandoo ak suñu ay caméraman euh, xool ngeen xool yéen bu leen neexee bu ngeen wootee da ngeen di xool animateur wala animatrice préférée bi nga xam moo leen gën a neex euh, ñu ànd ak moom jël caméraman bi nga xam ne moo dàq filmer ci tele bi ñu jël oto bi euh, xool chauffeur bi nga xam ne moo dàq dawal ci tele bi ñu dawal fas yéene ñëw ba fi nga ne fépp foo mënti nekk ci Sénégal nag euh, dinañ la fa fekk fépp foo mënti nekk ci Sénégal ndax nit ma nga Kaolack nit ma nga maatam euh, ma nga Tamba euh, ma nga fa nga xam ne moo di Diourbel wala mu nekk Thiès mbaa mu nekk Fatick mbaa mu nekk fépp ci 14 régions yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal yore ay bagage yoo xam ni ki nekk Dakar daf koy soxla ki nekk Dakar nag naka lay xamee ni li ma soxla nekkul dakaar mais ma nga Tamba il faut nga jaarale fi yow mi nekk Tamba say bagage parce que du waan Dakaaru Njaay rek euh, ñoom ñoom moom émission bi mais quatorze régions yi yëpp yéen moom émission bi te fépp fu waay mënti nekk nag dañ la fay fekk yow mi nga xam ne da ngaa nekk bitim réew sax yore ay bagage yoo xam ni des fois da koy teg ci GP di ko di ko indi fii ci réew mi yow aussi itam mën nga jël sa pack bi nga xam ni mooy bu trente mille francs bi ndax bu boobaa dangay nekk Europe nga jël sa ay ay bagage nga filmer ko ci li nga xam ne moo di sa téléphone lu tolloog une minute boo ñu ko envoyé tamit euh, ñun aussi tamit dañ la koy jàllaleel fii nii euh, defal la ci sa adresse ak lépp loo xam ni bu dee sa numéro Europe sa numéro Sénégal ñu jàllaleel la ko nit ñi aussi itam xam ci li ngay yëngu donc émission bi nga xam ni euh, yéen la fi nekkal yéen askan wi émission bi nga xam ni ndax ñi toog seen kër des fois dañuy faral di woo nit naan xamoo fu nangam am wala xamoo fu am yow mi yore nangam boobu boo ko wanee fii émission bii moom la réew mi yëpp di seetaan émission bii moom la àdduna bi bëgg émission bii la xale yu jant yu jantal yi nekk émission bii nii la xale yu jigéen ñu euh, rafet taaru kaar macha allah yi nekk donc ñëwal indi fi sa ay bagage waxkat yi fi lañ nekk ñu waxal la ko bàkkal la ko jaayal la ko defal la sa ay yëf donc daw si leen ngeen ñëw euh, ci émission bi nga xam ni euh, moom mooy émission bu mag bi ñu jàllale leen seen pack boobu nag moom mooy kat pack bu xam ne moom mooy bu quatre-vingt-cinq mille bi noonu la ñuy dem ak yéen lépp loo xam ne aussi tam am nañ ko ci ay Euh, surprise wala lépp loo xam ne am nañ ko ci ay bànneex pour di leen ci bégal ak lépp loo xam ne am nañ ko ci ay xéewal aussi tam dañ koy partager ak yéen donc nag foofu laay pëtëxloo jaaree fa dugg ci Facebook live bi fekk fa sama xarit yi nga xam ne euh, jamono ji ñu ngi toog euh, commencé ñoo seetaan donc waa Facebook live bi ñoom nga xam ne ñoom chaque jour bu heure bu jotee dañuy bàyyi li doon def lépp xam naa connexion moom jamono ji jamono ji moom connexion il faut ma koy maye. il faut may maye connexion jamono ji ndax heure bi bu baax bi heure bu baax bi jot na euh, am na ñoo xam ne ñu ngi toog bëgg nañoo dugg mais problème connexion la ñu am. léegi nag damay tàmbali balaa maa dem dara balaa MD di ma may dara ma yëngu comme émission bi euh, tàmbalee naa ko ci fant euh, damay dem ci ambiance après bu ci kanamee tuuti am na humour am na li nga xam ne aussi tam moo di ay dédicace am na lépp loo xam ne moom moo fi am euh, bu ci kanamee ñu dem ci ak yéen fi toll nii ñu ngi ma commencé di envoyé li nga xam ne moom moo di ay kër yen a ngi gis ñu ngi may envoyé ay kër di ma envoyé ay message léegi nag en attendant les événements damay tànn trois personnes en attendant ñu yokk seen connexion donc pour yokk connexion vingt cinq mille laay def trois personnes yoo xam ne jamono ji ñi ngi fii euh, dama leen di xool may leen kenn ku ci nekk vingt cinq mille francs ñu yokk seen connexion en attendant ñu gën di xuus di gën di dem maman jaxumpa mi ngi ci salle maquillage bi di capp capal moom moo ma fas yéene wéetali fii nii nga xam ne fi laa nekk euh, léegi nag euh, bu ko defee dañuy dem seeti ki nga xam ni moo di la diva ndooy la diva ndooy nee na émission bi macha allah commencé naa rupuj puuj yaa ngi doog tàmbali mais mi ngi commencé neex donc yow dama lay xam ni la moom moo di vingt cinq mille francs numéro téléphone am nekk 77 407 67 li ci topp 77 407 li ci 67 euh, li ci topp moom aussi tam may naa ko li nga xam ne moom moo di vingt cinq mille francs léegi damay jàll tëlaat def sa salaato tël ba ca kaw su ma defee sa salaato yemaat ci ki nga xam ni moo di aram busoo Aram Bousso lay Aram Bousso lay numéro téléphone am nekk 76 956 80 li ci topp 76 956 80 li ci topp moom aussi tam may naa ko li nga xam ne moo di 25000 francs pour mu yokk connexion am en léegi nag euh, damay dem xooli ki nga xam ni euh, ki nga xam ni damay sa salaato xool ki nga xam ni euh, mi ngi tudd. Hmm, moo Moodu sol soldaaru Barxaam Moodu soldaaru Barxaam moom aussi tam mi ngi commenté envoyé na ay cœur yu bleu envoyé ay cœur yu weex xam naa li ma gis li ma li ma def nii la samay dàll nag ci kanam tuuti dama koy maye. waa samay dàll ci kanam tuuti dama koy maye euh, dafa am benn affaire boo xam ne dama leen koy laaj bu ngeen tontoo damay maye samay ay daal tey sol naa ay daal yu doy waar dama ci naa ci am di cuus génneeti ay affaires yoo xam ne ay affaires yu yéeme la léegi euh, ay waay ñuy tël nañ ko ay nañ ko waay ay léegi damay may ki nga xam ni euh, moo di Moussa Pouy Moussa Pouy numéro téléphone am nekk 77 268 88 la ci topp 268 88 li ci topp moom aussi tam may naa ko li nga xam ne moo di 25 000 francs mu yokk connexion am gën di envoyé gën di yokk ay kër MD. su baaxee nga xool foofu noonu lu la neex jamono ji ñu demee ci euh, yokk yóbbu ma yóbbu leen ci euh, ngéwal euh, te bu leen fàtte tamit ba tey ni bu ci kanamee tuuti dinaa fi dala benn ndaanaan goo xam ni moom dafay imiter ki nga xam ne moo di suñu papa coon benn ndaanaan boo xam ne mi ngi jógee ba foofu noonu ci jàmm gën moom aussi tam bu ci kanamee tuuti dinañ ko teg fii tey aussi tamit pas de bongo pas de tama paada sabar pas bool dañuy continuer ci mouvance bi nga xam ne moom lañ nekkoon xam naa ba bi indiwaat euh, daa a nenge nenge euh, dañuy indiwaat bu ci kanamee tuuti ki nga xam ni dafay imiter suñu papa Thione yàlla na ko yàlla euh, xaare àjjana fa mu nekk suuf oyof ci kaam bu kanamee tuuti moom aussi tam mu may ñu tuuti ci baatam bu neex boobu nga xam ne moom la yor ñu fàttali ko waale tuuti papa Thione donc loolu moom ci kanam tuuti lay doon mais ba tey bu leen ni instant bi ñu nekk nii kaa bi gën na compliqué kaa bi euh, dafa gën a compliqué li ñu naan l'heure est grave laver les mains porter les masques comme ni ko Thiass di waxee nañuy faral di takk suñu ay masque man maa ngi ak sama masque euh, li ma nekk ci studio bi di def émission moo tax takk ma masque bi mais ñi ngi digal ñëpp ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo nekk ci réew mi képp koo xam ni doomu sénégalais nga euh, doomu euh, mën nañ ñu ngi lay ñaan nga dem nga xam ni nga jël li nga xam ni euh, moom moo di ñàkk yi nga xam ni fi mu toll nii ñëpp ñoo ko war a jël ndax fi mu toll nii boo xoolee chaque jour bu dee yaa ngi vérifier cas yi fi mu toll xam ngeen ni affaire bi c'est dense affaire yi compliqué na fi mu toll nii affaire bi cas bi critique na ñu bëri nag dañuy faral di toog man ñooñu xaw ma ay ivoirien lañ xaw ma ay nigérien lañ xaw ay lan lañ mais ñun suñu ay doomu réew ñun nañ am suñu xel mu mat mu màcc moo xam ni nañ xam ni feebar bi mi ngi ci biir réew mi te feebar bi day rey comme ni ñu koy faral di waxee nañu moytu di raxas ay loxo ay gel euh, bu fekkee dañoo génn ba dugg ci kër gi balaa ñoo def dara nañu raxas loxo ak ay saabu ñu raxas ko ba mu set ñu fomb ci ay morceau yoo xam ne ay morceau yu sell la yére yi nga xam ne ni moom lañ génne woon aussi tam bu ñu ñëwee mën nañoo jël yére yi ñu wekk ko ci lii gi bàyyi naaj bi mu jàpp ko après ñu fóot ko en attendant les événements parce que am na ñoo xam ne demuñu dikkuñu ñu ngi seen kër yi toog ñiy dem ñoom ñooy jël yi feebar bi di leen ko indil donc ñun ñëpp nañu mànkoo euh, di moytu bu fekkee amoo fenn foo jëm loola amul lenn loo xam ne farata looy dox mën nga toog sa kër nga sàmm sa bopp sàmm ñi nga xam ne moom mooy sa njaboot ndax hôpitaux yi jamono ji nekk nii fees na dell dell dell kenn amatul foo jëm bu ku dem hôpital fi mu toll nii dem di euh, nii dangaa feebar boo demee dañ lay xool wax la nga dem toog sa kër nga quarantaine sa bopp donc comme ñun ay magum jëmm lañ euh, ñun ñoo war a aar suñu bopp ñun ñoo war a sàmm li nga xam ne moom moo di suñu kaaraanga réew ñun ñoo a sàmm li nga xam ne moom moo suñu santé ndax euh, ay mag lañ dëkkal suñu ay kër suñu ay yaay suñu ay papa suñu ay maam ñoo nekk ca kër ga te feebar bi xajub ci ñoom feebar bi xajub ci xale waxatuma la ak mag donc ñun ñi nga xam ne ñoom ñun ñooy génn dem di taxawaalu ji euh, bu ñuy ñëwaat ci biir kër gi nañuy jël suñu ay matuwaay nañ jël suñu ay gel di ko def suñu poche nañuy takk suñu ay masque normalement bu ñuy te fii nii ci loxo bi te bañ di sëqat di jàkkaarlook nit ñi ndax virus bi mën na jóge ci yow dugg ci nit ki ñuy dandante te moytu rassemblement yi ak moytu daje yi nga xam ne ay daje yu baree baree bari la euh, te toog suñu kër euh, ba feebar bi yàlla jëlee ko fekk jàmm ak salaam léegi nag MD loolu benn juste benn kii la rek boo xam ne dama ko doon jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di sama ay xarit léegi nag fu la neex yóbbu ma fa nga yóbbu ma ngéwél en attendant man damaa tàmm nag des fois di faral di wéet fii ci plateau bi mais xaw naa mama jaxumpa léegi maquillage am pare ndax bi may wax ak moom mi ngi toll ci faaru bi donc pare na faaru droite bi ngi toll ci faaru gauche le temps muy ñëw toog fii moom aussi tamit ñu pelloo ko waxtaanee ko ma duggaat ci Facebook bi maye li nga xam ne ay xéewal la yoo xam ne saawaan baawaan la foofu laay pëtëxloo euh, nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yëmbal yëpp foofu nga xam ne falaa laa juddoo yaroo fa màggee fa maa ngi jiital ci duyoo bi ki nga xam ne moom moo di sama yaay ja maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di ko maa ngi siyaar sama yi sama grand yi ñoom maanaa ñoom abteel ah, ñoom ñëpp maa ngi leen siyaar awa wàcc madame Thiam maa ngi lay béggee bu baax baax a baax yéen ñëpp maa ngi leen siyaar yëmbal tet ba tet maam jaara silla sama yaay ja maa ngi lay siyaar bu baax baaba njaay sama mag ji béggee naa leen bu baax a baax MD nag léegi fi mu toll nii loo ma jox ma yóbbu ngéwal wax naa bay bëgg a dee ak rasulullah wax rek kooku ñu ci àndoon nag moom